Euh, ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ci le grand face to face Siteu moom mooy door a noonu Siteu moom mooy door a agsi nii la na gis ngeen cortège bi waa Tarkinda yaa ngi nii. billaay mbokk yi gis ngeen ah c'est l'arrivée de Siteu ah cortège moo ñëw noonu waa jàmm gën waa jàmm gën a ngi noonu ñu ngi door a agsi ah ñu ngi door a agsi fii ci 2 bi muy le dernier face to fees après seen face à la presse waa Tarkinda yi agsi nañu ànd ak seen champion. ngeen oto champion baa ngi noonu mi ngi ànd ak ak waa këram ñoom caatu fora ah gars yi agsi nañu tarkindaa baa ngi si ginnaaw sa nga am sa leneen teel bëgguñu taalibe Bamba rek bàyyi faal bi amul leneen Papa Sow bu soobee yàlla sunu borom benn jooy lañ jooy kooku day ëppal ëppal lu mais dina xam ne ëppal suñu la ëppal ñoo moom ëppal ñoo ko moom Papa Sow day xaar ragaluñ loolu bi nga na bëre ba ñàkk bu mbiri si ëppal suñu yëf la wala dëgg ba xewle barke alxuraan bakkan la ñuy laaj Papa Sow war naa yàlla dóor mu daan nañ tey billahi dóor mu daan barke alxuraan kii ba ñoo jaral kii lamb ñi da see jaral lu ne chaise baa ngi noonu dafa ëndaale chaise am caatu fora moo ko yor caatu fora moo yor noonu yéen a ngi gis euh, l'arrivée musclée de Siteu arrivée oto baa ngi noonu dañ koy encadré ba mu dugg ci biir yalmin baa ngi noonu ci biir oto bi dañ koy encadré ba mu dugg ci biir logo 2STV yi grand grand ñu ko encadre ah wër oto bi yépp kenn du laal kenn du jege tarkindaa yi ñoo ko wër kenn du laal kenn du jege. waaw encadré ko encadré seen mbër ba mu dugg ci biir. Ah. borom dëkk waaw borom dëkk dëkk bi la. kenn par kenn kenn un moo tax sa yaram yëpp dafa bañ ñëw bañ. duñ bañ de Siré la lay topp keneen ku dul Siteu war na yàlla yalmin moo ñu barki sëñ Fallou Mbacké benn yaa ngi dégg keroog benn jooy bi yaa ma ne ko Siteu si xol leneen da saa xajul ku jël leneen def ko sa xol yàq nga sa xol ñun xam nañ bi kese waaw ah, déglu ma ñun xam nañ ni ngeen mel ci Siteu lu leer moom kenn waxatu ko ñun Siteu day am combat ñuy rayante di denc suñu xaalis fukki dërëm ak juróom xeebuñu dara billaay walaay moo nu ko jaral moom rek la da ngeen naa ko weer billaay walaay taalaay ndax alhamdulilah moom lañ am bi mooy waaja dugg léegi gars yi xam nga rek làmb moom dafa am lu mu baaxoo làmb dafa am lu mu baaxoo ah kii mooy war a bërik anaconda kii moo war a bërik anaconda voilà si combat spécial yi la bokk mais si te wàccagul waa këram wàccaguñu ñuy xaar dañuy négocier nombre yi ko war a accompagner ñu ngi naan deux ñu ngi naan quatre personnes Max Mbargane mi ngi taxaw mi waxtaanak waxtaan ak waa këram ñoom Colifay deux ñoom Caatu Fora ah gars yi accompagner Siteu yëpp ñu ngi noonu taxaw di waxtaan ak père Max Mbargane mooy seen papa mooy seen père. ñu xaar ba tey Siteu ñëw na yaa quinze vingt minutes mais ba tey wàccagul duggagul ci biir gis ngeen li ko wër yëpp liggéey bi sax dafay metti lii comme làmb ja comme stade estat xaw ma lu muy nuru tarkindaay kenn mënul téye seen bopp mënuñu puus mënuñu arrière dañoo ñëw bëgg seen waay waaw ñoom ñoo ko moom dañ naan ñoom ñoo moom Siteu dafa mel ni kii wàcc na dafa mel ni kii Siteu wàcc na ak tengaade bi jon waar la jóge ànd ak waa jàmm gën ñu dar ko ànd ak moom nee nañ ñoom ñoo moom Siteu ñoo bëgg Siteu ñoo ko moom les tarkindaa e les tarkindos ñoo ko moom de ñooy ànd ak moom père Max a ngi noonu di négocier ci entrée bi coono rek lay àndal ndeysaan ak ay doomam cey père Max na fi eh, eh, eh, déet waay bul def lii bul mbëkk bul mbëkk. ma bàyyi leen ngeen déglu discussion. nee eh, leen loo leen bëgg moom la ñuy def abu Ndiassé ngi noonu ci ginnaaw ñooñ ñooy ses proches ay xaritam ay àndandoo ñooy tëddandoo ñooy nelawandoo ñooy demandoo entraînement ñooy waxtaan ñooy naanandoo caayin ñooy doxantundoo nee na ñii mënu leen bàyyi du leen bàyyi ginnaaw saa yu saa yu génnee rek gis leen ci kanam gis leen ci ginnaaw te duñu ko bàyyi mukk fu mu dem dem dikk soob eh, gis noonu mi ngi tey lii la andi tey fii la génn le grand champion doomu jàmm gën doomu John Waar war a jàkkaarloog papa tey combat yi nañ toog rek di xool di seetaan rek. toos yaa fi ne yow rek. Papa Sow da ngay cuux mi ban ban da nga jàppe moo xam lépp barki Serigne Touba ñu koy cuux ñoom ñëpp la ñuy ñu koy cuux bàyyil ba bis Papa Sow bisaab la day yóbbu. Papa Sow du bandi du Baay léegi nag mi ngi dugg léegi gars yi jox nañ leen consigne ne leen mën ngeen mi ngi noonu di wax ak ak euh, la police nee na leen mën ngeen a dugg. noonu la demee fii léegi pare na léegi mi ngi dugg léegi la champion mi ngi noonu di dugg. pare na léegi ma ngay duggu ma ngay dugg ànd ak waa këram per Max Mbargane moom ngeen gis noonu mooy papa mooy tarkindaa bu mag bi père tarkinda mi ngi noonu ànd na ak ñoom ànd ñoom léegi ña ngay waxtaan dañuy def cummikaay door a dugg ñu ngi waxtaan ci seen biir ñaari accompagnant la am plus son manager mi ngi noonu si da pare na dugg na dugg na ci biir ban heure xaaral ma joxe heure bi ñaata 23. ñu ngi ak Caatu euh, Fora Caatu Fora maa ngi lay maa ngi lay fay. yéen dootoo leen ay xarit léegi ay mag waaw loolu moom am na si tënk. loolu am naa lépp jàmm waaw taw feex ñu si kaw. bés bu rëy la de gars yi dañ koy wax rek bés bu rëy la bés bu rëy la bés bu rëy la. waaw nee nañ nee nañ nag bu mag bés bu rëy lay xaar. xam nga nag bu mag bi. <laughs> mooy Papa Sow. <laughs> mais dama dégg naan. saa saa yu ñu ko wanee ginnaaw ci la ci lay wax lu ko neex. waaw mais bu ñu jàkkaarloowee waa ji du wax. dafa mel ni dafa leen tëral benn benn benn stratégie boo la ñëwee face mu jox leen làmb ji bu demee nee wax leneen attaqué leen dafa mel ni da leen ñu cuq waaw loolu nag xam a ne nañ yónnee galgal ubul làmb moom bu ñu taxee face à face du def dara bu nekkee moom kese muy pokoleeru di wax lu ko yëfi mag la waaw mais garaawul ñun tamit yëfu xale la ñuy def nante ñun moom nante la de non ko gën a pare foofu gis combat ba mu taxawee ba léegi seen i face to face ñoom ñaar ci ay kam waaw loolu noonu lu dëgg la ci ñoom waaw parce que làmb ju yàgg la xam nga loo fi wax waxaat la ñoom dañoo wax a wax a wax a wax ba xaay xamatuñ lu ñu war a wax loolu tax wax waxaat bëri wax la instant xam nga lu def mooy jëf rek mooy jàpp yàlla suturaal ñu may ñu ndam billaay loolu kese la. mais gars yi dañ napp surtout temps yi entraîné dafa nekk ci île ba rek toog nekk ci boppam. waaw léegi est-ce que loolu risque ci moom. waaw léegi loolu xam nga li ñu am na loo xamante ne maanaam maanaam muuma kenn du ko sëlëm ay bëtam waaye ku gumba tamit kenn mënu koo xooloo ba gis si temps ngi noonu yéen a ngi noonu yéen a ngi gis liggéey naag liggéeyul bu wàccee léegi bu toogee neen ci xam dara mais gis nga keroog papa lim contact ak moom. waaye loolu yëngaluñu contact loolu loolu contact ma siyaar na delloo bu wér. gis ngeen waa ji mu ngi ci forme de. barke Serigne Touba nekkul si dara. yéen jàpp leen ne waa ji da leen di dóor ay dafa mel ni ki genre da leen di dam yee. grand Siteu xale la barke alxuraanu karim. Ah, moo tax mu bëgg leen dam. ngeen ne ko 15 ans barke Serigne. affaire mag nag la leen di jaay. non mënuñu jaay mag ay mag ak barki yàlla ba biir géew bi ku sa maam yar barki Serigne Touba boo ñëwee yar rek ngay wane si ta la barki alxuraan bu ko jàppee rek mu xam ne xale mu def ay rotation ci suuf moo ko barki Seydou naa Mouhamed Papa Sow dafa màgget ba mu paree daan naa ni ndox mënul sax daan Modou Lo da baax ma fiyaa ëppal bi ñëpp a ngi xaar xam nga lu ñuy xaar bés bu rafet ñun làmb ji dañ cee sonn sax wax ji ñun mënuñu ko quoi léegi nag leen laa leen laaj kongu si da sax xajul si Papa Sow kongam gars yi dañu bëgg làmb ku wax waa jàmm gën na ne ñun fair play lañuy moom dama leen koy ñaan ku ne jàmm gën xam ne ñun fair play la ñuy dund barke Serigne Touba. jàmm la tudd de. barke alxuraan. jàmm moo gën lépp. billaahi gën jàmm la ñuy dox si la ñuy si la ñuy si la ñun jàmm la ñuy dund. xam nga saa dafa ñëw bii passé combat bi yàqu bii passé bii yoon moom moo ko sabablu. waaw léegi dañuy woote ñëpp nag ñu ñëw sabablu jàmm rek. amaana xam nga nan la demee maanaam moom jour boobu noonu xam na ni nu mu def day daanu. noonu la def barke Serigne Touba ñoo ko gën a pare fuuf grand si da xale la loolu laa mën a wax quoi si da xale la. barki muy xeex pare ngeen muy bëri xeex pare ngeen unité 1 ba 26. déggoo ma la parcelle unité 1 ba 26 la. arrêt bu ñu taxaw si da daan ñu yegg si ñu demaat beneen arrêt si da ko. 26 combats xam ba 26 mën. si du moroomam. yaa mu may yooyu 11e bi mu ñëw prouver. garaawul man dama gis Papa Sow bu confiant. xam nga Papa Sow bu nandite. xam nga ku micro yi tim ngay wax. ak ki nga xamante ne nii yow tey yow yaa ngi toog sa kër quoi jàpp sa njàmbur. micro baa nga tim li may wax dafa nekk sama mbër quoi. moom est-ce que moom tamit li mu wax nekkul ci moom. Papa mag la mag la xam nga daa dugg daa dugg combat bi passé daa dugg daa ñëw stade di jooy bii bu ñëwee day wàccu lu ne lay def barki Serigne Touba. waxal waxal lan neex. damay wax moom. waxal lan neex. loo mën laaj ma tontu la ji. barki ndaan dégg ngeen papa li mu wax lan la wax. nga gis forme bi mu yor man ba mu ko gisee gis mola yi dama ne oh. forme daanu Siteu Siteu bu muy simeeku contre Zarko. gàtt saf la de. Siteu bu muy bëreeg naaru sogaas boobu ñëpp a ko ëpp bu muy bëreeg Zarko ñëpp a Zarko ko ëpp bu muy bëreeg naaru sogaas naaru sogaas a ko ëpp. mais ñooñu est ce que ñooy papa Sow mbëri dañoo utee. xam nga Papa Sow bi ngay wax ñun mu saf la de saf saf billaahi wallaahi wa taalaahi man ba keroog ñu may yee amul lu may tiital si Siteu Papa Sow laam-laamee Siteu lay daan Papa Sow billaahi wallaahi wataalaahi amul lu ma siy laam-laamee Papa Sow bëre bu mu yor mënul daan Siteu bu ñu leen koy wax doo leen ko gëm mais ñun ñu ko seetaan ba fat ba léegi bu ñu leen koy wax dañ leen ko xam Papa Sow bu ñu yebee Siteu micro lañ ko jox bu ko joxee micro na wax lu ko neex mais bu duggee arène nationale lu mu defoon démb lay tariwaat tey ñëw jooy wala ñëw yaakaar làmb ji chaque jour waa jàmm nga ñëw yàq làmb ji kan moo na nañuy wax dëgg si waa jàmm gën lu ñu def ak lu ñu deful ñun bu ñu defee ñoo def mais lu ñu deful nañ ko wax te yàlla tax. mais bi yoon bi gars def dara. non dañoo mus a def dara. lamb ji passé boo leen ñëw doo leen def dara. non dama laa laaj ndax bii passé dañoo def dara ñun. man maa yor sama micro man maa laaj. mais bii passé defuñu dara jam nit yow bu nekkoon yow la doo taxaw. non daw. waaw kon jeex na boo ñëwee bugg gaañ nit kay ñu gaañ na yeneen néeg la borom a jëf na. ay siyaar nañ leen waa Sénégal naa est kay waaye sant Serigne Touba bu waaw noonu la demee nag waaw ñoo si xale de non ñun dañuy defar ay Baye Fall lañ ma fi yaay lañuy jox leen bañ non ah, waay de la tu sais non booy moom man sama gaay laay defaral rek mooy lool. duñ la fay waay duñ la fay soxlawu ma ko maa ngi ñoom mooy lool. barkeelu ci tarki noonu la demee nag. yow amoo benn laam-laam ci combat. non combat bi nii Papa Sow mosuwaat azote lañ ñandu sànni lañ sekk moom. <laughs> njëriñ ci société bi amul lu mu def lu ko nit ñi di gërëm surtout xoola cag-cag yi yëpp gaan moo ko jënd jox ko booy billaay wallaay di jël ay alalam di ko def si gaay kooku dëgg leen rek gaay yi ñu ngi job naay si cag-cag non ñu ngi job naay te daa décentralisé de yemul jaama gën kese sax fu la dem ay Sicap Foire ay Nord Foire ak fépp cag-cag yée ngi fa kooku yàlla da koy fay xolam Papa Sow dañ koy pomper surtout du fi newul muy ndaraj ndaraj di wax mais surtout yal min bi lay jàkkaarloo de déglu leen ko ngeen xool du wax du dépassé complexe la dañ koy pomper muy wax ñoo ñu di ko pomper nag lañ soxla après. surtout ñu koy pompe papa yéen papa instant day dam yi ak yéen. yow koo xam ne da ngeen mu bàyyi leen micro yi. boo nee mu teg beneen daa dugg instant dégg sii Siteu Siteu la bi muy jooy góor buy xareje di jooy kooku parewul góor guy xareje di jooy pareegoo ñëw ba stade gis stade bi nu mu mel muy jooy nee ko stade bii nag du am fu ñu toog sax xanaa ñu ñëw ba midi. du ñëwul miri duñu toog mobilisation bu ngand la ñuy def moo xam nga ne dix combats ñu jël waa parcelle te jàmm gën benn la te ñoo leen di ëpp dañ leen di xajal sax dinañ leen may sax yenn boy yu ndaw yi ñu ne leen toog leen bu leen ñun waaw ñun ñu fanaani ay mixa lañ jël ay appartement seen biir ana waa mixa wax leen waaye waay kefe xeexu MMA ak xeexu lamb est-ce que benn la si te doo bëggee dégg dëgg Papa Sow du yaroo

papa du pousse du passe Siteu mooy borom dëkk bi comme mooy l'ambassadeur papa nee naa la kooku moom min la barke Serigne Bamba duma naa ko daan barke Alxuraan papa naa ko duma naa ko daan. mais naaw da ngaa yombal combat bi a papa dafa màgget kooku paa na soixante jabar taaw papa Sow mën na Siteu jabar mais bëgguñu ko taaw papa Sow mën na Siteu jabar. barki alxuraanu karim Siteu moomin la xale bu ndaw papa buñ ko jàppee nañ ko duma nañ ko daan. nañ ko duma nañ ko daan nañ ko duma nañ ko daan mais jàmmagan dañoo oyofal combat dañ ko jël en léger. dama la dégg jàmmagan ah déggoo ñu ne la jàmmagan. Mhm. Ah, jàmmagan fan la jàmm gënee jàmmagan fan la jàmm gënee. lamb ji nii la ma tax ñu oyofal ko ñun xam nañ ko. jàmmagan lépp jàmmagan ayaw. Ah, échauffourée tuuti kon loolu rek lañ leen di wan papa a ngi ne la yéen a ngi gis mi ngi door agsi oto banalisé la dugg sol na blouson am ànd ak ñaari nit dugg àndut ak ay nit amul cortége amul dara oto banalisé la dugg léegi gis ngeen. Euh, fi nga xam ne fi la waa Cité taxawoon dañu taxawoon nii mais dañ leen a dégager ñu dem ne mais oto bi bi mu ñëwee wane wuñ ne Papa Sow mooy ñëw wala nangam bañ booy yi mën a dal ci kawam parce que ñi ànd ak Cité dañoo bëri lool lool lool lool lool te yàgg nañ fi yor seen i scooter léegi nag dañ leen dégager oto banalisé euh, benn 4 x la Papa Sow dugg ñëw ba ci bunt bi ci la ci ànd ak ñaari nit rek facilement. ki la dugg ci biir stade bi kon mi ngi noona lool lañ leen andiloon tey ci euh, face à face Papa Sow Siteu arrivée des deux lutteurs ci Sénégal kon jaa ngeen jëf à plus tard di ngeen gis yeneen éléments yu bees incha allahu rabbi jaajëf góor gi.